bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin sayidi al awalina wal axirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ictada bi adiyi ila yowm ddin wa baxdu fa ayuha al ixwatu wal aqawaat uhayikum bi tahiyati al islaam wa aqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon bokk yi ginnaaw bu ñu mësuloo yàlla ci seytaane tàmbalee ci turam wu tedd wi di bismillaahi rahmaani rahim sant ko cant gi yee ci moom julli ci ab yonentam te sëlmal ci moom sant sunu sëriñ xaadim rasuul ñaanal ñi ko fi toogal sunu borom dolli yàggal seen taxawaay bu baax a baax a baax te dëgëral leen te yàggal taalibe yi ci seen ginnaaw kon mbokk yi ginnaaw loolu ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu qaala allahu taala inna awala baytin wudiha linnaasi lallasi bi bakkata mubaarakan wa huddan lil xaalamin fiihi aayaatun bayyinaatun maqaamu ibrahim wa man daqalahu kaana aaminan wa lillahi ala annaasi xajjul bayti man istata ilay sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun an il alamin sadaqa allahu alazim wa qaala sallallahu alayhi wa sallam buniya alislaamu ala xamsin sahaadati an laa ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaat wa itaai sakaat wa sawmi ramadan wa xajjil baytillahi alxaram sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi bu ñu déggee aaye bi ñu ubbee ak xadis bi ñu ci teg daañu xam ne waxtaan wi ñu ngi ko jëmale ci lii nga xam ne mooy xew-xew bi ci jamono jii mooy aj màkk yàlla suñ borom tabaaraka wa taala dafa wax ci alquran ne néeg bi mu njëkk tëralal nit ci kaw suuf ngir mu jaamu ko ci ci di ko wër ak di fa topp yàlla nee na néeg boobu mooy néeg bi nekk mag mu nekk néeg bu ñu barkeel ak tëralam nekk itam njub ñeel mbindeef yi ni yi dafa gindikoo ci lépp sun boroom tabaaraka wa taala def fa ay kaawteefam yu leer nañ ñi bokk na ca barab ya fa nekk maqaamu Ibrahim sun borom nee na képp koo xam ne tabbi na fa am kóolute ndax urumi màkk ji sun borom moo ko def mu nekk xaraman amina urum ju yàlla jox sécurité mu teg ci nag ne yàlla sun borom tabaaraka wa taala waral na ci nit ñi pour nu ajal ko ca néegam boobee ci képp koo xam ne mën na ko ku weddi lii nag na xam ne yàlla sunu borom tabaaraka wa taala ku doylu la walif mbindeef yi yonent bi salaa sam wax ne maanaam islaam de ñu ngi ko tabax ci juróomi ponk bi ci jiitu mooy saxal ne yàlla rekk mooy buur amul beneen buur bu yeyee nu jaamu ko bu dul moom muhammad ndawam la bi ci topp mooy iqaamu salaat taxawal julli ba ca topp mooy itaawu sakkaat joxe asaka ba ca topp mooy saw sawmu ramadaan gii ñu jógee woor weeru koor ba ca topp di juróomeelu ponk bi mooy xajju baytullaahil xaraam kon aj màkka moomu maanaam bokk na ci lii firndeel ne lu war la mooy lii ñi nga xam ne moom lañu jàng jëlee nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne xatabana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi benn bis daa wàqanteeg nun wax mu yaa ayyuhan naas inna allaha qad farada aleykum alxajju fa hujjoo yéen nit ñi ne yàlla farataal na ci yéen aj ko nag aj leen nee na fa qaala rajulun am benn waay boo xam ne soo seetee dafa daa di ne waa yow mi yàlla yónni maanaam wax ji nag wax nañ ne mu ngi tudd Aqra ibnu Habis Aqra ibnu Habis moo daadi ne yow mi yàlla yoon yónni akulla xaam yaa rasulallah ndax loolu at mu ne la ñuy war yonent bi noppi tontuwul mu ne akulla xaam yaa rasulallah ndax at mu ne la ñuy war yonent bi waxul dara noppiwul noppi rek tontuwu ko ba ca ñetteelu yoon ba nag. yonent bi salaa sam daa di ne law qultu naxam la wajabat wóor na la ne bu ma la noon waaw rek dem mu war leen te su boobaa wala mas ta tëxtum du ngeen ko mën su ma leen noon waaw rek mu war leen te du ngeen ko mën daa teg ci ne sëru nii maa taraktukum li fi maa ngi leen di bàyyi ci noppi guma noppi ci mbir yéenit nangeen ma bàyyi ci bañ maa laajte mbir moomee li feeg maa ngi leen di bàyyi ci noppi gu ma noppi ci mbir maanaam nangeen ma bàyyi yéen it ci bañ maa laajte mbir moomee ndax fa innama alaka man man kaana qablakum bi kasrati su'aalihim waxtilaafihim ala anbiyaayim ña leen jiitu ja ña jiitu woon kat xeet yi leen jiitu woon la leen alagoon du dara lu dul bëri lu ñuy laaj seen yonent ak wuute gu ñu wuuteeg ña yàlla yónni woon ci ñoom mu ne léegi daal fa isa amartukum bi sayin faatu minhu mastatatum su fekkee ne digal naa leen mbir na ngeen ko defee seen kem kàttan maanaam nangeen ngeen ca def lu ngeen mën waaye wa isa na ay tukkum an sayin faddahuhu su ma leen teree mbir nag bàyyi leen ko su ma leen teree mbir bàyyi leen ko rawaahu muslim ci beneen riwaaya ñu ne aqra ibnu abis moo ne yow mi yàlla yónni ndax at mu ne la ndax at mu ne la yonent bi noppi ba ca ñetteel yoon ba mu ne ko law xultu naxam la wajabat te su boobaa su leen waree maanaam lam taamalu du ngeen ko mën a def lam taamalu biha du ngeen ko mën a def ndax walan taftatihoo du ngeen àttan an taamalu biha ndax walan tastatihu an taamalu biha du ngeen ko mën a def ndax lu tax mooy àttanu leen ko kon nag maanaam alxajju marra nee na aj daal benn yoon la ci dunduk nit ki fa man saada fa huwa tatawo ku ca dolli rek yaa ko coobare woo waaye benn yoon la war nit ki ci dund gi ci dundam gi ñu xam ne bokk yi maanaam lan mooy taxriifu baatub xajji ci boppam taxriif bi alxajju huwa qasdu makkata li taxbuda Eh, li taabuda lillahi subhanahu wa taala bi aada il manasik maanaam baatub xaj suñ ko waxee mooy jublu màkka ngir jaamu yàlla suñ borom tabaaraka wa taala ci jooxeel ko ponkam boobu di ak aj moom nag ahadu arkaanil islaami alxams benn la ci ponk islaam yi juróom wa fardun min al faraid benn farata la itam ci farata yi allati ullimat min ad-diini bi darura mu benn farata la ci farata yi nga xam ne xam neen leen ci diine mu nekk farata yu leer nañ yoo xam ne kenn umpalewu ko falaw ankara wujubuhu munkirun kafara wartada anil islaam képp ku weddi ak waram dañuy daal di jàpp ne yow da ngaa murtad da ngaa génn ci diine ku weddi ak waram rek dañuy jàpp ne da ngaa murtad da ngaa génn ci diine ñu ne nag lii tegtale farataam maanaam fardiyam mooy waxi sunu borom ji tabaaraka wa taala wa lillahi ala nnaasi hajjul bayti man istataa ilay sabilan loolu mooy aaya bi nga xam ne mooy tegtale waram ci alquran maanaam aaya boobu nasalat fi haami taasi min alhijrati wa huwa alaamu allazi yusamma haamal wufuud nee na aaya boobu mu ngi wàcc ci atum juróom-ñeenteel bi ci gàddaay yontu bi salaasam mooy at mi nga xam ne moom leen doon tuddee xaamal wu mooy at mi topp ci fatxu màkk mag wu fóod délégation yu bari ya daa ñëw di joxe seen bopp di dugg ci diine moo tax bëri gun bëri ñu tuddee ko xaamal wu fóod wa bihaa furidal xaj ci moom lañu ñu farataale aj waaye waxi sunu borom ji wax nag ci suuratu bàqara wa atimul ajja wal umrata lillah matale leen aj ak umra ngir yàlla dañuy wax ne fa fiiha fardul itmaam bii aaya bi maanaam faratawu gi farataw matal gila la farataw matal gi la moom moo jiitu maanaam farataw ibtidaa bi laa fardul ibtidaa isan fa fardul ibtidaa kaana fi sannati taasihati fi aayati suuratil aali imraan wa amma fardul itmaam istimraar wal itmaam fa kaana fi aayatil baqara fi sannati sittin min al hijrati ñu ne maanaam aaya bi nekk ci suuratu baqara moom ci atum juróom benneel ci gàddaay gi la wàcc aaya boobu maanaam li muy saxal mooy maanaam matal gi ak saxal gi maanaam loolu lay kéen aaya bi ci suratu Ali nag maanaam ñu ne aaya la boo xam ne moom mooy farataal maanaam jëf gi soo seetee loolu mooy euh, li teqale ñaari aaya yooyu noonu la ñëwee ci moxtasaru ibnu kasir radiallahu anhu kon fadluhu raqaba saariu fi aadaa'i faridatil hajji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xemem loona jaami yàlla yi ci jooxe farata ji di faratay aj faratay aj wa huwa min afdalil ahmaal bokk na ci lim leen xemem loo ci jooxe farata jii di faratay aj mooy yonent bi xam la ne ajkat mu ngi bokk ci jëf yi gën aj mu ngi bokk ci jëf yi nga xam ne ñoo gën waxan abi hurayrata radiallahu anhu qaala zuila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayul ahmali afdal jëlee ci abi Hurayra radiyallahu anhu mu ne dañoo laaj yoon bi sallallahu alayhi na ko waa ban jëf moo gën qaala imaanu billahi wa rasulihi gëm yàlla akub yonentam qiila suma maasa qaala suma jihaadun fi sabilillah ñu ne ko waa ginnaaw ga mu ne jihaad ci yoonu yàlla qiila suma maasa qaala suma ajjun mabruur aj gu nangu ginnaaw gàllaan mu ne ñu ne mu ne aj gu ñu nangu wal xajjul mabruur huwa al ajju allasi laa yuqaalituhu ismu aj gu ñu nangu nag mooy aj goo xam ne borom du ca def bàkkaar mooy aj gu ñu nangu loole mooy firnde ba maanaam aj gu xam ne borom lenn luy caaxaana ku kii eh, mbóosóor du ko ca def loolu firnde la ci nangu aj te matale farata ya kon bu loolu firnde la ci ne maanaam aj gu ñu nangu ci jëf yi gën a baax ci jëf yi ci la bokk te loolu aaya bu hadis euh, boobu saxal na ko ba ca topp mooy maanaam aj yoolub jihaat mu ngi ci aj yoolub jihaat mu ngi ci te loolu it yi ñuy bëgg a saxal maanaam ma ñuy bëgg indi dana ko saxal waxan xasan ibnu ali radiallahu anhuma anna rajulan jaa ila nabii sallallahu alayhi wa sallam fa qaala inni jabbaan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 واشهد ان محمدا رسول الله اشهد أن kon mbokk yi ñu dellu leen nuyuwaat ngir yegg li li des ci waxtu wi ñoo ngi tollu woon ci maanaam yonent bi saxal gi mu saxal ne aj jihaad la saxal ne aj jihaad la loolu bokk na ci li koy firndeel hadis bi ñuy bëgg a wax ak yi ci topp dañu wax ne dañoo jëlee ci xasan doomi ali radiyallahu anhuma mu ne dafa am benn waay bu ñëw ci yont bi sallallahu alayhi xam naa waaja sootul jaxate lay sant wala lu ni mel mu ne waa dafa ñëw ci yont bi sallallahu sam wa sallam anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fa inni jabbaan wa inni daxiif ne yow mi yàlla yoon ne man de ko ragal laa lu jëm ci ngànnaay moom ñemewuma ci dara ku néew doole laa fa qaala yonent bi salaa salaam na ko xàlluma illaa jihaadu laa sawkata fiihi kaay ci jihaad gi nga xam ne lenn lu xeetoo ngànnaay amu ci mu ne ko mooy lan mu ne ko mooy alxajju mooy aj mooy jihaad gi nga xam ne lenn ci xeetu ngànnaay amu ci rawaahu abdurasaq wa tabaraani yu ñu jëlewaat ci abi hurayrata radiallahu anhu anna rasulullah salaa sallam qaal jihaadul kabiri wa daifi wal marati jihaatu mag wala ku néew doole wala jigéen mooy aj rawaahu tirmisi bi isnaadin hasan ñu jëlewaat ci aïsata radiallahu anha annaha qaal qaalat yaa rasulallah tara aljihaadu afdalu amali afala nu nee na Aïsa radiyallahu anha dafa wax ne dama ne yonent bi sallallahu alayhi wa yow de danga ne jihaad bokk na ci jëf yi gën waaw léegi ndax ñun jigéen ñi ñun it du ñu bokk ci ñiy jihaad qaala yonent bi ne ko la kunna afdalul jihaadi xajjun mabruur mu ne ko yéen kay am ngeen ngën ji jihaad mooy aj gu ñu nangu muttafaqun alayhi ci buxaari ak muslim wa rawaya wa rawaya anhuma wa rawaya anha annaha qaalat buxaari ak muslim ba tey nettali neen jëlee ci aïsa radiyallahu anha mu ne qultu ya rasulallah ala naxsu yow mi yàlla yónne ndax du ñu xeex wa nu jaahidu maakum ñu jihaad ànd ak yéen xaala yonent bi nekkoon la kunna ahsanul jihaad wa ajmaluhu alxajju xajjun mabruur mu ne ko yéen kay am ngeen gën gaa rafeti jihaad tey gën gaa maanaam taaroom mu ne ko mooy lan mu ne ko mooy aj te mooy aj gu ñu nangu qaalat aysata aysata nee na depuis bi mu déggee lii ci yont bi salaa sam la ne man de kon dootuma bàyyeeti aj dootuma bàyyeeti aj ba tey bokk yi xarit yi aj dafay far bàkkaar dafay far bàkkaar li koy firndeel xadis yi ñuy bëgg a jàng jëlee nañ ci abi hurayra radiallahu anhu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man xajja falam yarfus walam yaf yafsuq rajaa ka yawmin waladatu umm rawahu buxaari wa muslim nee na yonent bi sallallahu alayhi nee na képp ku aj te jaxasoo woo ci ak jigéen defoo ci ak mooy yàlla sooy dellusi dangay mel ni bis bala sa yaay jure ci set ci bàkkaar dangay mel ni bis ba nga juddoo ci set ci bàkkaar hadis boobu buxaar yu ak muslim moo ko nettali jëlee nañ ci amru bnul xaas radiyallahu anhu qaal lama jaxala llaahu lislaama fi qalbi amru bnul xaas kenn la ci kilifa màkka yi maanaam yonent bi sallallahu alayhi eh, moom amru bnul xaas nee na bi nga xamee ne yàlla def na islaam ci sama xol nee na ataytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nee na damaa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qultu ma ne ko ubsut yadaka fa la ubbaayeexka mi yàlla yónni tàllalal sa loxo ma jaayante ak yow ginnaaw bu yàlla defee islam ci xolam nee na damaa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko tàllalal sa loxo ma jaayante ak yow qaala fa basata nee na yonent bi daal di tàllal loxoom waaye amru la aas nee na fa xabattu yeddi man ma téye sama loxo ma bank sama loxo yonent bi tàllal na loxo moom mu bank loxoom waaye loolu politique la moom ku mënoon politique la nee na fa xabattu yeddi fa xaala malaka yaa amru waaye yow Omar lan la xanaa du yaa ma ne tàllalal sa loxo ma jaayanteeg yow ba ma tàllal lu la jot ba ngay bank nee na xultu ma ne ko astaritu damay damay sart maanaam bala may tàllal sama loxo pour jaayanteeg yow damay sart xaala yonent bi ne ko tastaritu masa looy sart looy sart nee na xultu ma ne ko an yaxfira lii ba yàlla jégal ma damay day day wér ne daal su ma jaayanteeg yow yàlla damay jéggal sama bàkkaar ba ma set wecc xaala yonent bi ne ko ama allimta an al islaama yaadimu maa qablahu wa anna al hijrata tahdimu maa qablahu wa anna al hajja yaadimu maa qablahu rawahu muslim mu ne ko waa xanaa xamoo ne islaam day màbbu lépp lu ko jiitu woon ci lu dul noonu xanaa xamoo ne gàddaay day màbbu lépp lu ko jiitu woon ci lu dul noonu xanaa xamoo ne aj day màbbu lépp lu ko jiitu woon ci lu dul noonu rawaahu muslim waan abdullahi ibnu mas'ud radiallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaal taabi'u bayna al ajji wal xumrati fa innahuma yanfiyaani al faqru wa sunuub kama yanfi al man qabasul adidi wa sahabi wal fidda wa laysa lil ajjati l mabruur sawaabun illa al janna rawaahu nasaa'i yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci nu ibn mas'ud radiyallahu anhu mu ne yonent bi nee na leen toftale leen aj ak ndax ñoom ñaar kat ñaar yi moom dañ koy def dañuy dàq ak ñàkk ci nit ki waaye dañuy dàq itam bàkkaar ci moom comme ni xamee ne uppukaay tëgg boobu ni muy dindee lépp lu nekk ci weñ gu ñuul gi te bokkut ci wala ci wurus wi wala xaalis bi te bokkut te mu ne aj gu ñu nangu kat amul benn pay lu dul aljana rawahu maanaam nasaib bokk yi xarit yi maanaam ajkat yi ñoom ñooy gani yàlla ajkat ñooy gani yàlla duyuufu rahmaan lañ leen di tuddee gani yàlla suñu borom tabaraka wa taala dañoo jëlee ci abi hurayra radiallahu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala alhujaaju wal ummaaru wafdullahi in dahawhu ajaabahum wa in istaxfaruhu xafara lahum nee na ñi nga xam ne ñooy ajkat yi ak yi de ñooy mbooloo mii ñëwal yàlla gane si ko ca néegam ba mbooloo mii ñëwal yàlla gane si ko ca néegam ba ñoom de nañu xam ne saa yu ñu ñaanee yàlla suñu borom mu wuyu leen suñu ko jégguloo mu jéggal leen rawahu nasaayu kon bokk yi xarit yi maanaam ba tey xadis boobu ibnu mata ak ibnu ibbaan li na ko nettali nañ ko ci seeni sax yi waaye seen lafsu ba ñu indi nag mooy waftullaahi salaasa dañuy wax ne mbooloo mi dikkal yàlla nga xam ne ñooy gani yàlla yi ñett leen mooy alxaaju wal mu'tamiru wal qaasi kii ajkat bi umrakat bi ki xeex ci yoonu yàlla bokk yi xarit yi aj dafay maanaam ab yoolam aljana rekk la ñëw na sax ci hadis bi jàlloon aj amul aj gu ñu nangu amul benn yool budul eh, aljana jëlee nañ ci abi Hurayra radiallahu anhu qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam eh, nee na alhumratu ila al umra kafaratun lima baynahuma fi nga umra ren ba fi ngay umra déwén lépp lu doxoon ci seen diggante lu dul noonu effacé neen ko wal hajjul mabruur laysa lahu jasa ilal janna aj gu ñu nangu amul genn pay lu du aljana rawahu buxaari wa muslim bokk yi xarit yi maanaam lii nga xam ne mooy bokk yi xarit yi maanaam lii nga xam ne mooy mooy aj lii lii nga xam ne mooy aj maanaam euh, waxtu wi dafa mel ni lii ñu ci mayoon jeex na donte li ñu indi woon jeexut waaye bu yàlla dogalee ñu dellu si fi wala bokk yi fii dellu si dellusi dellu fi maanaam mën naa am dañu ñu xuus ci li nga xam ne mooy aj ci maanaam ponk yi ak ni ñu koy defee maanaam wa aqiru daxwaana an alhamdulilah rabbil alamin lépp lu ci dëng ñu ngi koy jéggulu yàlla te di leen ko jéggal waaye te di leen ko jéggulu waaye lépp lu ci jub ñu ngi koy sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala wa aqiru dahwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf Allah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 واشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي maa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله ومن لا نبي بعده أما بعد أجبا لابن آدم سخرفت له الجنة فأبعده أنها كسله وسهرت له النار فأو أخاه فيها وسلله ناداه الرحمن فكأنه لم يسمع وناجاه سيطان فيا سرأته ما أسرها على علي الإجة فأبى إلا أن تقوم علي الحجة فيا أيها الإنسان عسى سهر توبتي والندم عسى سهر الاستقالة من سلة الخدم فيه يجتمع وفد الله بأرمه يطوفون بيته ويلوسون بكرمه ويتحوسون برداه من سقته وبأهبه من نقمه فيستسلمون الأجر الأسود فهو يمين الله fi l ard fa aniihan li mustalimihi bi aqin bi aqin fa innahu yasadu lahu yowma alxiyaamati walharb bismillahi rahmaani rahim yaa ayyuha naasu ajaroo fi taa'ati llahi mawlaahum al awlaada wal awtaana wa haajaroo ila beytillahi l arami ma bayna rijalin wa rukbanin yasihoona bi tadbiyati labbayka lahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka inna alhamda wa nihmata laka walmulk la sharika laka nahnu narjoo mahrofaka yaa daayima almahrofi yaa man uwa bilmahrofi mahrofun yaa jawaadan laa yabxalu bil afwi anni duyoofi fa ma ashadahum bi ajin baytil muarram wa ma adyaba waqtahum fi asal yowmi almukarram yusbaxu laahu alayhimu nihmata wa yansaru ilayhim bi ayni rahmati al adis xaala alayhi salaatu wasalaam alhaaju fi damaanillahi muqbilan wa mudbiran aw kama xaal yaxfirullahu li wa lakum